asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna kii jàkkaarloo yéen tey nag mooy Mansour ñu gën ma xam au nom de l' artiste Zo artiste compositeur maa ngi nuyu ñépp di sant ñépp waaw musique bi moom dafa nekk loo xam te ni lu ma yàgg fooye la talent bi nekk ci man ma xam ni lii su ma ci yëngoo. war na ma yóbbu fu sori ma xëy rek tugg ci musique ba nii ma jàkkaarloog yow di wax ak yow. waa musique ma boo xool ci li nga xamante ni moom laa la mën a wax lu précis mooy 2007 laa gën a xam ni soobu naa ci musique bi maa ngi def musique parce que boobu engagé wu naa pour def musique. waaw single moom yaakaar naa ni tey bu ma la ko bëggoon a konteel moom fi la ñuy fanaan quoi te bëgguma yàq émission bi bëgguma nekk fii di la wax xam nga mais single yi bëri na featuring yi bëri na lépp bëri na macha allah quoi. je vous dis loolu si def waaw loolu moom dama ci am mbégte bu rëy dama ci am mbégte bu rëy parce que def naa single bu nice artistes yi di ko snap gars yi di ci def ay selfie yu nice xama sama xol daf ciy sedd mais li nga xamante ni mooy euh, delloowaat njukkal waa Tiwaawan te xam ni man bu ma demoon fii ba New York City ak lu mu mënti am Tiwaawan laa koy indi kontaan naa ci torop mu nek ndamu senegal nek sama ndam te incha allahu rabbi yeneen a ngi ñëw yoo xam te ni beneen affaire lay nek waaw euh, manque de moyens mu ngi ci euh, tamit euh, pas sax duma ni manque de moyens mais bëgguma defantou parce que gaay buñu bu bu neexul après ils jettent à la poubelle. man dama bëgg bu ma affaire clip chaque jour télé yi di ko xam nga ñëpp di ko mu ni day cartonné waral single di ko étudier di étudier waat di xool di di di di ci waxtaan ak ñu man buñ ko clip dina cartonné wala parce que toujours bu ne appréciation public bi di déglu seen xalaat di waxtaan ak di xool li may def lan la parce que musique bi dafa dépassé affaire de kenn nit lu mu ci doon da nga ciy waxtaan ak ñu ci a waxtaanal après boo ko waree def clip mu génn nga def ko clip su ko defee àdduna bi yëpp di ko déglu. waaw ñun moom li ma la mën a wax mooy carrément ñun ñu ngi def suñu wareef parce que suñu wareef mun a weesu ñoom autorités yi lépp lu ñu xewle ñun ñu teew si mais franchement wax dëgg yàlla yëgaguñ suñu bopp ci ñoom. parce que tey Tivaouane dafa nekk dëkk boo xam te ni dëkku culture la kon ñi nga xam te ni ñooy doomu Tivaouane nekk fi autorités yi nga xam ni ñoo fi nekk war na leen a gën a mën a teg te xam ni ay talent rek ñoo fi nekk ay talent ci wàllu wépp nag ci wàllu wépp ay talent rek ñoo fi nekk waaw parce que talent yi bëri nañ kon ñoom autorités yi ñu ngi leen di gën a ñaax pour ñu jàppale artistes yi nga xamante ni ñoo nekk Tivaouane di yëngu ci lu bari. gën yu ci ëpp moom ay festival lay nekk yu ci ëpp ay festival lay nekk parce que man sama rêve mooy toujours bu ne rek ñu may gis ci chaîne yi gën a mag muy national di international parce que tey jii koo xamante ni 2012 ku nekk xam na ni concert bi Youssou Ndour defoon place de l'Obélisque nga xamante ni place de l'Obélisque la ba angal gumba te yaakaar naa ni jour boobu waa Tivaouane dañ fa gis seen doom di di di jo te bobu ñu ko doon defal le président de la république Macky Sall kon nga xamanteni man yag na jàppale autorité yi yag na jàppale autorité yi kon encore une fois nañ gëna a artiste yi nga xamanteni ño nek ci waaw. waaw xamante ne man ma nek nit ko xamanteni rek sama lepp lu moy wax rek dafa am fuma koy jaar parce que lo gis rek dafa am njaalbeen ben bi duma la neub fi mu jaar. mu ngi jaar ci euh, sama benn jigéen bu ñuy wax Seynabou Gaye Touré nga xamante ni single bi ma defoon ci président moom moo ko financé woon ci loolu lañ amee ay rapport ma nekk ci affaire yi avant 2012 avant président di falu mais boobu ba léegi ñu ngi si jàpp tàyyi wuñu parce que man mooy li may wax chaque jour nee naa leen jikkooy carotte laa yor danga may jënd ca marché ba may xonq nga may togg may xonq nga may lekk may xonq boobu ba léegi nag maa ngi ak président de la république mais su ma la jàkkaarloo nañ fi ay mais su ma la nëbbul mooy ba léegi ah gisaguñu dara te wax dëgg yàlla man duma ma demee intérêt commun maanaam du ma demee intérêt personnel intérêt commun laay demee mooy man dama bëgg liggéey Tiwaawan gii nga xamante ni fi laa juddoo fi laa dëkk ci wàllu aar bi nga xamante ni ci laa nekk ma bokk kook samay nawle te ay talent rek nekk fii man loolu laay xeex Tiwaawan ni mu bëree ay talent ku mel ni yow bëri ay talent nga xamante ni TIV info bii ki ko taxawal Tiwaawan gii la dëkk talent yi bëri nañ talent yi bëri nañ kon loolu laa bëgg xar sama tànk tubay te bëgg maa ngi lancé appel autorité yi ñu jàpp ci même président de la république parce que président de la république Tiwaawan dafa war a xam ni mooy xolu Sénégal Tiwaawan mooy xolu Sénégal kon waaw a président maanaam boole waaw parce que man ma mooy li ma la wax rek mooy président Macky Sall man moo ma ñor quoi parce que tamit euh, euh, ki la feesloo moo la yàppaloo mooy suñu sëriñ ba suñu suñu wasila bi moo ni nañ ko bàyyil xel président de la république te man yaakaaruma ku dul sëriñ Abdou. parce que tubaab da ne la France commence par une lettre majuscule et se termine par un point man al amin point. kon bu nee nañ ko bàyyil xel Macky Sall du def lu dul taxaw ci loolu ah, jàpp ci. waaw euh, parce que bu ñu amul te bonte taxawaloon taxawal naa benn mouvement boo xam te ni mouvement mu ngi tudd dëggal sa bopp mouvement bi dëggal sa bopp la tudd dëggal sa bopp nag boo ko déggee mooy carrément. dama japp ni nit ki ci lepp lu mu nek rek war nako meuna ñongal ba tay ji ni ku lay jàppale fekk ci war wa parce que tay ji tamit nit ki boy dem Dakar bëgg ku la yóbbaale yaakaar taxaw yoonu dar yoonu Dakar ngay taxaw ba ku lay man la jël motax ma créé won mouvement bobu ñu tuddu deugal sa bop wa mais zo personnellement euh, man président Macky Sall moma ñor ak tiawone membre yi ñaari moom ñu topp ci ginnaawam bari na parce que Zo moom nekk na artiste boo xam te ni car macha allah du def lu kenn dul yëg waaw man macha allah lu ma def wala lu ma dugal sama loxo waaw muy nekk loo xam te ni parce que nit ñi dañuy góolu samay affaire parce que loolu moo yàllaa ko def parce que fa yii seen ñëpp duñ ma fa seen waaw man ku ne xam na ma ci surprise. waaw parce que man tey jii nii waaw macha allah daal yal na yàlla xeeb doole yàlla yokk wér gi yokk talent bi mais lépp lu ma def day cartonné macha allah maa ngi ci sant bu wér. te euh, askan wi bëgg nañ ma Sénégal bëgg nañ ma àdduna bi bëgg nañ ma parce que tamit nit ki fu sa tur àggee foo xam te ni sa jëmm àggu fa yaakaar naa ni si foofu la yam te man sama tur àgg na foo xam te ni sama jëmm sax àggagu fa kon loolu dama ciy sant yàlla. mais mouvement bi moom nekk na mouvement boo xamante ni ñëpp a gis fu ma romb boo déggul zoo al yaa ngi dégg zoo dëggal sa bopp man damay dëggal sama bopp ah parce que tamit ay doomu Tiwaawan lañ waaw dama ne sàccub Tiwaawan sax bu demee ci yeneen dëkk yi moo leen dàq sàcc kon mooy loolu. <laughs> <laughs> lan dugg kooku moom kooku moom yaakaar naa ni euh, daal di kooku danga bëgg a yàq émission bi rek moo tax nga bëgg a dugg foofu mais kooku moom sama digganteeg moom. nit kooku moom euh, bu ma ciy dugg dafay am lu may dama ne xam nga ki nga xamante ni da koo bëgg ba foo toll rek yaa ngi xool. loo koy tàggee man sëriñ ab dama koy tàgg tàgg tàgg tàgg ba du ma musa ba ba du xam lu ma koy tàggee daal kooku dem naa ba tuddee ko wari bi nga xamante ni ñëw sax doo indi <laughs> code. Uh-huh. Euh, kooku maa ngi ciy liggéey ak pour te ay producteurs yi gën a mag producteur yoo xamante ni mën naa ni sax nekkunu Sénégal nekkuñu Afrique. am na ci koo xamante ni mu ngi États-Unis koo xamante ni moom nee na projet boobu rek rek rek rek moom moo ko ñor pour wan ne la Serigne ab dafa yéeme pour wan la ko góor googu nekk na koo xamante ni mën naa ni ñu dul sax ñoo ko gën a bëgg parce que ci ak dal ak baax ak bëgg lu avancé loo Sénégal ak bëgg jàmm parce que ki dem ba takkale ñaari baaraamam yi ni man maag yow noonu lañ mel ci loo xamante ni sosuma ko kooku góor googu kenn la ci man koo xamante ni su may wax ci moom sax mën naa ni sama xol day fees parce que àllaay demee parce que ki nga ni sëñ Abdou Al Amin si gil na ëttu Maodo ba tarixa tijaaniya fës na ci suñu jamono sa xam-xam bi di géej la wër na arasa kursi yu sa xam bi di géej la na arasa kursi yu ma ni maa ngi koy wàcc laaw bu ni jëmm jii de yéem na ma ba ko xamul looy wax ci moom gis naa sa kër jëxal na ma sëñ Abdou Al Amin ma ni baax oyof lool mag ak ndaw ñëpp ko miin nekk sagu xadara bi ni yoneen xare woon badar bi marabu yaanu njablu ci jëw hëratu tey siiru Maodo tafsiru Qur'an kurs gu ñu werd ko ba xam luy dëgg tijaan ma ni marabu xaalamba taaram ba xam-xam ba tab mag mu ñu tab muy mag mu am xaalimul hëy ba ba xaalim yëpp mujjee xéem xel bu ci miim yàgg te mooy xilaasu sëhëb ba tarixa cheikh aha kenn du ko xarab ab du nekk jàmbaari lislaam yor ji koy puso du xotti ni di islaam maanaam góor googu daal di góor googu dama ne kooku mooy mooy mooy mooy mooy point maanaam kooku moo nekk góor goo xam te ni doo wax dara te taxawoo ci moom mu nekk koo xamante ni xeebalul kenn teraangaam dadi góor googu ci laa gisee koo xamante ni ci loo nekk moom la ci encouragé tey jii da ngay ñëw fekk ko saalam mu toog sax nga toog ci suuf mun la danga ngaa mës a gis fauteuil yi nga ñëw fekk ay xar toog ci kon toogal ci kaw na fauteuil yi pour nit moo tax ñu ta ñu sàkk ko fonk doomu aadama fonk Tiwaawan ci moom laa njëkk dégg mu ni ku jàppe sa bopp yax xaji seeñu la toog na dëgg nit da nga war a fonk sa bopp man moo ma jàngal fonk sama bopp dama ñëw néegam mu yëkkati xaalis bu bari jox ma muy ci ki nga xamante ni moom laa ko tuddee muy sama doom ma tuddee ko ko li ma ci gën a neex mooy doo ñee sa benn moroom ba pare ni ma yow sa cofeel ci man wër na àddina kon buñ ci guddalee rek damay ragal émission bi yàqu te bëgguma émission bi yàqu. waaw ñoom ñëpp samay xarit lañ. te ñoom ñépp tamit xam nañ ni man ku bëgg seen way juru góor laa bañ ñaa ko ba yamale ma ko kenn waaw waaw ku ma gis nag dinaa la wormaan mais nag su ma la waxee dëgg man gëwuma ku dul sëriñ Abdou waaw man daal man daal moom laa bëgg daal waaw man daal sëriñ Abdou man mooy ki nga xamante nii noo mooy sama lépp samay jur xam nañ ko samay xarit xam nañ ko dëkk bi ma dëkk xam nañ ko sëriñ si xam nañ ko ay doomam xam nañ man sëriñ Abdou rek laa bëgg noo bëgguma keneen bu fi yamoon sax mu neex man sëriñ Abdou rek a ma ñor parce que loolu yàlla moo koy def yàlla moo koy def bu ñuy mujjee gisee buleel dama ñëw ni ko kat góor gi man dama romb benn oto mu ngi yàpp ay tracteurs yu bëri ma naan góor gi man le su ma amoon xaalis damay jënd tracteurs yi indi la ko ci sa tool bi mu ni ma duma la sas tracteur parce que tracteur dafa cher mais saxal ci rab bi ba ci kanam kon ki la wax loolu bàyyi na xel li ngay def ki la wax loolu xeebalu la li ngay def. kon nga xam ni góor googu kenn la woon wàllu nam nag ci nga xam yàlla mayoon na ko ci kooku moom duma ko sax ci ay émission mais kooku moom mën naa ni euh, Macky Sall tey bu gañewul woon deuxième mandat ma xam ni Serigne Abdou liñ koy génn moom naru ma mais dama ne Sall su amul woon deuxième mandat ma xam ni Serigne Abdou liñ koy génn du moom parce que xam naa ni. waxuma la bàyyi leen xel Serigne Abdou Macky Sall mais xam naa fi ko Macky Sall tolloon parce que moo nekk koo xamante ni yàgg na ko wax nee nit dina ma may dërëm ma koy rëyal ba nu yaakaar ni sax dama am lu ma bëgg ci moom fekk la ma koy defal sax ko ëpp Serigne Abdou mille personnes dinañ ko ràng 900 yëpp wala 999 yëpp moo leen di jox boo dee xool kenn ko ciy jox pour ma wax la góor googu mooy kan ñu gàttal parce que bëgguma yàq émission bi. waa am naa soxna. waaw waaw xale yi moom moom moom xama rek xale yi moom yàllaa leen booleeg zoo quoi wax dëgg yàlla ñu baax lañ waaw ñu baax lañ waaw ma ci ciy nuyuwaale sama benn jigéen sax aji moom it ku baax la quoi waaw ku baax la man jigéen ñi moom samay xarit lañ quoi samay xarit lañ. waaw parce que damaa bëgg sama yaay nag. parce que yàlla xam gis <laughs> waa ñaan gi nag ñaan gi mu ngi ci. ba pare tamit ma bëgg sama yaay. te jigéen ñu wax dëgg yàlla da gis ngay envoyé son bi nit sax mun la mu ne son bi guddi gi yëpp moom laay déglu. guddi yëpp moom laay déglu mu leen la ñoo ñu munoo leen a fay munoo leen a fay parce que nit ki ki ko bëgg rek moo ko sonal te nit ki amuñu lu dul ki ñu bëgg parce que tamit ngay wër. nit dañu fay ay millions pour nit ñi bëgg ko mais nit bëgg la rek ta yalla tax koku amo fayam ma ngi gërëm jigéenu aduna bi ñëpp di gërëm jigéenu Sénégal ta kaay ma xlo ben affaire yow da nga dugg sax fu graw moy tay dama lay may ben affaire bo xamanteni ni narul wona bok ci émission bi mais dina la ko may parce que ñu ngi jëm ci 8 mars ñu ngi jëm ci 8 mars dadi dama bëgg déglu li dama né fu goor dogé tolam jigéen sëgg na bay fa waram mani demal fas boy Casamance ba jaw be man réew moo gis mu laago du ci ñoom de la sooxe yeewu fajar daan seen doole bàkkoo bëre njël la joxe jigéen ki teel a yeewu en roñ njaq si teel a duggi marché teel a taal teel a yekk si muy sa jabar mbaa sa yaay su ko jaree sukkal ko raamal ko su ko aajowoo feccal ko parce que jigéen la yàlla teralee noonu kon jigéen dafa nekk sembool boo xamante ni bu am solo ci réew waaw di gëna fatali président de la république nak jigéñ ñi parce que jigéñ ñi bëgg nañ la dé té jigéñ ñi nak kuñ bëgg nga dem waaw ma ngi talal loxo jigéñ ñi parce que jigéñ ñi bu ñëwé ci yaw góor ñi top leen góor ñi mom fu jigéñ ñi nekk rek lañ nekk waaw. légui ku ñëw dem ci ci lay lay wax waaw man Tivaouane. waaw li ma leen di gën a gën a gën a ñaax moy ñu gëna fonkat seen bop parce que Tivaouane dëkkul leer la. Tiwaawan dëkku leer la da di tey dinaa la benn affaire boo xamul is ce que xam ni Tiwaawan nga yàqoo fi moo gën a gaaw nga defaroo fi xam nga lan moo tax parce que dëkku leer la te ñun dañuy waxtaan ak mag ñi ma bëgg ndaw ñi gën a fonkaat seen bopp gën a fonkaat Tiwaawan gën a fonkaat Tiwaawan autorités yi fonk ndaw ñi xam nga autorités yi fonk ndaw ñi jàppale jeunesse Tiwaawan parce am nañ volonté pour liggéey am nañ volonté pour def dara kon autorité yi maa ngi lancer appel ñu gën a génie. parce que tamit am réew li koy doxal mooy xelu mag ak doole ndaw kon maa ngi gën a lancer autorité, yi ñu jàppale jeunes yi waaw. waaw maa ngi sant euh, sama famille sama yaay ak sama papa di gërëm waa Tivaouane encore une fois di gërëm ñoo xamante ni ñu ngi ci yeneen dëkk parce que bu ma limee damay juum maa ngi gërëm euh, ñëpp di gërëm waa àdduna di gërëm waa Sénégal xam nga di leen gën a xam ni Zo mu ngi leen di gën a tàllal loxo pour ngeen jàppale ko. fi ni ñu jeexalee suñu émission ak yéen mooy di gërëm waa TIV Info mu nekk euh, chaîne boo xam te ni mu ngi daw ci réseaux sociaux yi ku ne xam na ni. wàllu wi yombul te yéen a ci xar seen tànk tubéy euh, campagne yi ngeen def ci liggéey bu am solo di def lu am solo loo xam te ni pour jariñ seen réew rek moo tax ngeen koy def non seulement man damay assister seen ay affaire temps maa ngi assister ay euh, film yoo xam te ni yéen a ngi koy tourner ak ay clip yu doy waar yoo xam te ni man dama ñew di xol parce que tamit affaire bi lool la da ngay xol li nga xam te ni doomu Tiwaawan ni ñu koy def parce que man dama bëgg lepp lu may def rek di ci and ak waa doomu ñi nga xam te ni ñoo dëkk Tiwaawan parce que tamit wax dëgg yalla tif info seen liggéey rafet na sell na te waa àdduna baa ngi leen di baye xel de lu leer la leen di wax gaay ñew leen nak bala mo xat may wax ak yeen tif info kese rek dong ñom ñofi fi nekk